salaamaaleykum mbokk téléspectateur Wassare TV Wassare Lamb ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu ngeen gisee fii ñu toog xam ngeen ne tey lamb ju mag amoon na suñu papa Khadim sàmb woote woon fii ci arène nationale ci diggante Bour Sine Eumeu Sène Junior ñàkk jariñu euh, Alioune Seye mu nekkoon làmb ju mag ku ne gis na li fa xew boo gisee heure bi xam ne gudd na ñoo ngi woon fii police Pikine ñoo woon xool si li fi am ñàkk nuyu naa la. waaw sama grand. waaw wasaare maa ngi leen di fay maa ngi leen di bëggee lu bari doole aussi waaw di bokk yéen tamit aussi li xew naqar bi aussi waaw di masawu coono tamit sama waay ji ci nekk tamit ak man mi ci gaañu ak Alioune Seye moomu waaw. dañ ci am ay blessures. waaw parce que bi liñ ma expliqué bi booy bi di wër yor sengoor bi noonu di wër ci la ko Alioune Seye saaga. moom it mu tourné fayu ak benn bitéel tiis ko quoi Alioune nag daw dàq ji ko bu mu ko dàq jee nag ci la ko door tomeeg moom muy matt Alioune di matt parce que booy bi dafa sew dafa tuuti ci la booy bi tourné loxo bi ñu dóor ko bi ñu ko dóoree man comprendre man maa ngi si digg géew bi que làmb ji man dama pare woon fépp wóor na borom tubaab dama man xamoon naa ne maa gën a jekk ci lépp xam naa parce que li ma si liggéey ak na ma si préparé bokkul léegi nag ba loolu weesoo Maguette Seck ñu wax Boy Niang numéro 2 moo ànd ak euh, Alioune Seye Alioune Seye comme que booy gaañ moo doon jéem duma booy bi booy bi gaañ ko. waroon nañu xool parce que mu mu bañ a yàq la waaye baa la jël ànd ak mbaboor gi quoi man ma resté xool instant yii gars yi sori nañ parce que téye sama gars yi ma daw bi may daw ma tëb dugg ci benn place mooy bunt bi. Mm-hmm. tamit bunt bi nañ ko vitriner. Mm-hmm. billaahi wallaahi taala duñ ko vitriner léegi comme que mënatuma dem ma dem aaki ma parce que li ma aaki ma mooy instant bi muy daw di ñëw sànni na ban bi vitrine bi la daal.

yi toj ci chaise yi la sama tànk bi dafa am problème. Mhm. parce que dañ ma dóor après ma daanu ñu daw jéggat ma ñuy wéq ma ñuy dóor ma ay chaise chaise yëpp sama yaram la dammoo. Mhm. parce que li ma doon bañ mooy sama bopp laa couverture comme que wax dëgg yàlla nee naa tey làmbu man def naa maa ngi ci làmbu depuis cinq laa dugg ci mbapat. musuma mhm. am problème si làmb musuma ànd ak kenn mu coow. ba mille 2011 ma dugg ci làmb musuma am problème sanction wala dara parce que man bu ma duggee ci làmb ñëppay kontaan ama ma yàlla. waaye tey man même bu nekkoon tey position bi nekk man maa fa nekk wóor na borom temps damay bëre que jekku ma. dëgg la jekku ma waaye du mag supporters yi. tey xale boo ko bëggee duma rek te yàlla àndu si rek mu wan boom parce que yow nit ki mi ngi wër nga saaga ko looy nangam mu delloo la ci loolu nga dem di ko duma sa doom sax bu ko noo ko duma nga di ko dóori bi mu koy dóori dafa màtt. wóor na borom Tuubaa booy bi jamu ko dafa màttu di dóor si booy booy bi riposté sànni ko benn ku ko dal ñu wéqate ko dóor ko instant booy mi ngi hôpital ñoom ñoo ko gaañ. te jaru ko woon parce que moom champion la ñëpp ñu ngi koy wax ku yaru la nag nit ki nag li ñu la xameewul bu ko dund man si fair play laay dox billaahi wallaahi taala làmb ji lu ma si def ak li ma si daj bëggoo moo ko nii boo seetlee amul lu ma neex. parce que dama kontaanuñ. billaahi wallaahi musuma dem stade mbapat sax laa la ko amateur jéppi ma. waa xam nga ñoom li ma wax rek ñoom làmb daf leen bàyyi man comme que xale laa tamit làmb nekk sama kanam ma waroon dund làmb waruñu moon lii lu ma naqari parce que suma niil si làmb suma niil man damay ñëw daal na ñibbi te tey dama pare woon yow ñu ngi sama open presse ñëw ku ñëw làmb ji ñëpp ñu ngi maa ñax da nga am excès de confiance su fekk di excès de confiance dama pare li ma li ma wax rek dañuy jaawale masse ak force man tey liggéey naa loo xam si billaahi wallaahi taala bu ñu ma ay cinquante cinq tonnes ku noonu ma daan ko sama mbokk ñaanal nañ ma waa Caaroy génn nañ bépp mbër moo war a jàppale jàppale nga ma sama staff jàppale ñu amul kenn ku ma jàppale wu ci combat bi ma jëm kon ko ba pare dayaat ay coono fu mu nii laa jëmaan parce que foog ma jël piquet tétanos parce que affaire sama tànk da see la dal tey kon làmb kenn dafa waroon dee muy man parce que li tax bi ñu gaañee Alioune gaañ bu ñàkk fayre deret bi mu génnee moom baa la dem jëli si cumukaayam ànd ak mboboor goo xam téye nañ samay mboboor ñëw dàq ji ma parce que dama noonu riposte ma xalaat ma ne non nii Maga sekk moom premier moo ko jiite te Maga Seck moom xam na man xam naa tey diggante ñetti mbaar ak caaro sori diggante géej ak caaro sori ñun nag bu demee ba tey suñ turuwaay dimbali suñ tubaa dimbali ñu nekk ci làmb bàyyi lu bëri dafa am ñoom dañu fi war a jàpp Maga Seck moom xam nga yoo xam nga. su ma jàkkaarloo nag moom maa ngi mu kese su ma ne lekkal mu lekk barki alxuraanu karim waaye na loolu dañ ko jël dëxëñ parce que liñ nekk daa am ñu topp ñu ay porteur de voix. man yow gis nga boo ma gisee ay reer laay dund ñu may nekk ku si ma bàyyil bàyyil billahi dañuy bàyyi tey waruñu moon jaay doole ci lam boole si lam leen nañ bàyyi ku ma am ndey ak ku ma amul man caaro gi dañ ma yaakaar te liñ doon xalaat caaro lu bon amatu fa tey su ma ñëwee nañ ma yaata la tey nañ ñu mën a mayee may nit koo xam si trente cinq personnes xaw ma quarante personnes xaw ma vingt personnes ci man neuf personnes ñaata ikiri tey loolu noonu te boole si tamit sécurité bi na gën a mën a doy parce que tey làmb ji woon luy yàqu te yenn tamit ñu baal ma si affaire yenn journaliste yu yor micro yi buñ ma xeeb ba tax ñuy wax ci man loo xam ni maanaam te tey buñ xeeb tey waa caar te ñu wàcc billaahi nekkuma ak ñu bon barki borom Tuubaa war ñu ma dund loolu boo ma dégg ay amaat ay journaliste yoo xam ñu ci wax waxi ñaaw naa nii rek naa loolu lépp du si dëgg ma ji jeexee billaahi c'est faux duñu wax katu dëgg loolu du cër buñ ma xool ni visage bi xaw a dof rek ñu tege benn benn doomu aadama bu xeebu laa man ku ma xeeb fii man dama nite fa yàlla li nekk sama bopp xam naa ko te am na xam ne dafa ñaaw war ñu ma tegee noonu bu ñu xool ne ñàkk caara la jógee day ñëw neexa làmb dof la no du dof sama bopp bi am na ndox bu ci nekk. banlay bi ci nit ñi lañ bokk. ok kon nañ ñu boole ci làmb ji nañ boole ñàkk jëriñ ci làmb ji. billaahi wallaahi taal ñëw moon pour tey làmb ji yàqu waaye nañ ñu joxaat cër ñun mbëri ndaw yi dëkk baale bi nañ bàyyi après kii écurie bi mag bii moo fu nekk nii ak nii rek nañu kii écurie xale yi fa nekk rek duñ ko respecté wóor na boroom Touba du yoon. nañu joxaat suñu cër parce que làmb ñun man làmb aw ma leen lu làmb kon nañu joxaat cër man damay neexal làmb di fay làmb làmb di ma fay musuma ñëw ak benn problème te dama ci am cër kon bu gis ñu écrit bi ay mag a fi nekk ñu ñëw dugal mag yooyu yëpp ak seen mboboor ñëw tey man dugal neuf personnes tey lu toll ñàkk jëriñ mu nangoo obligé bëri si combat buur Sine ak Eumeu Sène junior tey moom li def ci làmb ñu defuñu ko mu nangu ngir sëfe ngir tamit sama papa Xaadim li mu def ci làmb kon nañu delluwaat njukkal woow ñun mbër yi du ñu ay dof ñun ay noobul lañu nañ ko wax dëgg xale yi rafet ñun ñoo koy jëriñoo oto yi rafet ñun la kër yi rafet ñun la ñun ñooy tukkiri ñëw nañ jox jër tey bu nekkoon laam am na xale yoo xam ne mun nañ jaar feneen feneen waaye laamu dimbal nañ parce que bu ñu nekkee kuñ mel ni ñii détection ni ngi ruus ba tegu ci yoon xam ne war na lekk si laamu waaye bu ñu ñëwaat ñu ñuy dund yenn yi ba pare ay journalistes yoo xam ne yàlla mu yàlla jégal duñ waxkatu dëgg parce que boo naan Alioune Seye nii te xool action mu demee man tale lañ ma waanaa léegi vidéo yi damaa tiit booy bi mi ngi wër waa ji saago ko mu tourné bi muy tourné biteel la yor donc mu sotti ko ko waaj daw di ko téye dóor na ko moo tax booy da ko bi muy dóor dafa màtt booy bi loxo la ko dóor booy bu sew la waaye boobu xam nañu làmb ji tey du baax làmb ji sama làmb la woon dama ci pare ci fépp. mais ana booy bi moom. booy bi essayé dañ ko ñoom ñoo ko gaañ dañ koo gaañ kanam gee yooyu mi ngi nii ni euh, fii Dominique fii du yoon te booy yoo xam nga booy booy bu sonn booy boo xam waxam bariwul du tooñ. billaahi du tooñ du siggi xool nit sunu làmb ni day xëy di dem ambulant la te barki arxuraanu karim caaro yi lañ fi daan xalaat amatu ñi ay xale yi gëm seen bopp nekk seen bopp di xëy di ambulant ji ut lu ñu yor ay borom kër ay responsable lañ te kii ñu téye nii tey du yoon ñu koy téye parce que sonn ci man te ku dëggu la ku ko xam tey bu ma la woon image am da nga naan ni kii du kii wóor na borom ta tooñ nañ ko jaay nañ ko doole war nañ ma ñàkk daal pour ñoom mbër mu ndaw laa du ma mbër mu ndaw ku ci yaakaar ni ku ci indi say mbokk ànd mbër mu mag dooma daan lii laay teg parce que xale laa te damay liggéey du ma kaf te réew ma ci li ma nekk waaye nañu respecté waat ñun mbëri ndaw yi ñun ba ñun ñu nga xam si maanaam nekk ñu ay mag ñu xam tey xale boo gis mag lay doon waaye mag boo gis démb xale la woon kon nañ xoolaat li ñu def ci làmb bu baax a baax te bàyyi yeneen far faro yooyu te bàyyi tamit affaire seytaane yi ñuy dox nañ ma baal ci kàddu musuma waxee nii waaye lu jot rek jot na garaawul nag tooñ nañ ma tey ñëpp xam nañ ku xool image yi tale yi di gis billaahi fi ma taxaw gisuma lu dul gis Alioune Seye yor ak baam Maguette Seck yor ay siège ñu daw ti ma song mën na riposte gis ñu xam ne lii baaxul ma dawee report daw bu ma dawee fu ma tëb dugg bunt boobu dañ ko tëj amul delloo barke alxuraanu karim dama affronté siège siège yëpp sama loxo la dammoo parce que bëgg naa sauver bis bi bëgg mu woon gaañ même tey li ko dal bu ma daloon damay jël kii xam ne suuf laay jël diw ko bëree daan parce que dama pare woon pour daan tey man la bu nekkoon champion bu gën a mag tey mu ñu ci laam war a bëri man day daanu parce que xeeb ma li ma yor nee nañ ku xeebu sa noos kenn dàqu la noos te ñi ma ñaanal ak ñi ma jàppale non taxawee nañ fépp tey sama gox tey rus naa sax nii ba billaahi walaay ku ma seel stade bu may génn dama doon jooy parce que sax ma jooy ma gis naa coono ci mbër yi def gis naa nit ñi ci ciy daj barki Alxuraan dañoo dem ba dindi gerees gi nekkoon ci man ngir ndam tey kee boo xoolee ak gereem bi xool ma xam ne ñàq mi ak stade bi da nga xam ñàq mi tey ndam la ñëwee teg tey xoolal day am ñàq da nga naagu fekk du naagu xale laa dama toll ci jaay sama bopp te bis bis bu mag la woon maa ngi jégalu ñëpp nag di wax day sama xol neexul nag dañoo tooñ jaay ñu doole jaay ñu ni ci banlieue bi nga dëkk man li ma métti mooy caaro yi pourquoi mun ñu ko bàyyi xel ci discipline mu ñu ko bàyyi xel ci gëm-gëm dañ ñoo xeeb yàlla baax na un jour maa ngi jégalu ñëpp nag di baalu ñëpp ak di wax promoteur bi ak CNG bi muy docteur Alioune Sarr man ñaq ja ñëpp xam na ma si fair play bëggeewu ma ko woon noonu ab Ablaye Ndiaye sama ménager bëggeewu ma ko woon noonu billaahi wallaahi taala li ko daal bu nekkoon man la dal tey làmb day am billaahi combat day am parce que xale la comme ay xale laa àndal nag xale yi nag yàlla daf na ci ñoom loo xam si daf ko ci mag mag bu ñuy indi ku ànd ak mbër mu mag mbër mu mag bu ànd ak ay kilifa yu mag soo ñëwee man ñii ay kilifa lañ ci man kilifa yu mag lañ ci man te xam naa leen wóor naa gëm naa leen pour nit daan ma du yomb lii rek mënoon demee parce que ñoom xam nañ maa ngi jégalu ñëpp nag làmb yëpp wóor na borom Tuubaa maa ngi jégalu ñëpp ñëpp ñëpp bëggee ma ko nii te bu nekkoon man ak man sama sago rek du demee nii te xam waaye bu ëllëgee ku ci dóor xale rek xamal na koy dóoree bul tooñ dóor parce que yàlla seetaanut yàlla gars yi ni ñu koy xale bu góor la maa ngi jégalu baax a baax nag di leen tamit di leen remercier parce que heure bi wóor na benn site doxatul waaye xëy na gis ngeen ni mu demee te ñeme dëgg wóor na borom taal moo tax ngeen doxee maa ngi leen jégalu bu baax a baax di leen ñaanal seen site bi gën a rëy des fois fu gars yi yaakaar fala du foofu ñu yàlloo site yi yàlloo tale yi mag yi tooguñu fa maa ngi jégalu baax. ñoo ñooñu kontaan ci yéen gis ngeen nii la demee. mais du ñu ñëw ba dem te laaj laajuñ ko nga xamante ni mooy manager mooy mooy mooy entraîneur mooy yor léppam mooy Aline Fall yaakaar naa war na mën a am quelques cadres yoo xam te ne war na ko cee mën a sànni ñu doog a tëj. Aline Fall naa la. waaw ñu ngi leen di fay waa waa wasaare ñu ngi leen di fay bu baax. ñu gis tey làmb ji ni mu demee coow lu ci am ak coono yi ngeen ci daj. waaw bala may wax dara damay sant yàlla bu baax a baax ndaxte. coow li mënoon naa gën a gën a gën a garaaw nii. Mm-hmm. ndax plus de dix personnes ñu war benn nit di ko dóor mënoon naa gën a gaañu nii wala bakkan sax mënoon na faa des kon dañuy sant yàlla rek bi ñu génnee ci ay gaañu gaañu sant yàlla bu baax <clears throat> di masawu waa axlu làmb yëpp di masla masawu promoteur bi Xaadim Samb ak képp koo xam ne yaa ngi ñëwoon ci làmb ji tey ah di masawu it ñaari mbër yi dañ ci coono. muy ñax jariñu muy Alioune Seye numéro ñoom ñëpp dañ ci coono waaye xëy na tamit lii lu ñu waroon mën a éviter la ko <coughs> lu waroon mën a ñàkk la waaw comme ni ko mbër mi waxee rek ñax jariñu tamit comme ni ko gars yi gisee ci làmb ji gis nañ ne tey làmb ji géejawaay la woon làmb ji yëpp waa géejawaay la ñoo fa bari euh, ñu bugg ñoo néewal doole nag ci côté bu nekk. dañuy sànni ay ay ay ay ay galaaj di ñuy xëpp ay ndox lu ne mais saa ñu ko defee rek damay aw fi nga xam ne fa la ñu war aw muy daan dem réclamer ko au niveau du CNG mais dama réclamer ba sonn mu gis ne dañuy néewal doole dañoo xeeb xamuñ ñu parce que xëy na bu benn la dëgër taxawee numéro 2 taxaw la la dëgër taxaw benn guy gi taxaw ñoom la ñu gën a xam moom la ñu gën a respecté que man mii waaye xëy na ñoom xamuñu ma mais ki ma àndal xam na ma fonk na ma respecté na ma moom moom moom xam na ma ay kan. mais seen mais loolu la ñu war a loolu loolu ñu war a bàyyi kii dañ koo xam dañ koy protéger xamuñu ko yow faale wuñ la mais nag xëy na yàlla tamit du faral kuy tooñ tey ki tooñ rek moo gaañu ki tooñ rek moo sonn ñun ñu ngi sant yàlla bu baax li mu demee nag neexuñu mu sañoon sunu mbër parce que pare nañ ko ci lépp mu sañoon day bëri daan ko jëlee bu leer ñu dem ñibbi mais comme tamit lii la am li moo xew li moo xew dañu xam ne lii rek moo waroon amaa ah. lu ñu waroon éviter la nag mais comme am na ba pare dañ koy jégaluwaat rek. axlu làmb yëpp la ñuy jégalu xam na ñun neexuñu tamit neexuñu daal monsieur ñoon dañuy bëre daan. Hmm. fi mu toll daal lii nag di ngeen topp affaire bi fu mu yem wala di ngeen dem jégalu wala. nu demee waaw dinañ topp suñu dinañ dinañ xool li ñu yoon may ñu def ko parce que tamit mu ñàkk a jariñoo ñëwoon ci làmb ñëpp gis nañ ko pare na moom pour bëree. Alioune numéro 2 bu amee coow ak benn booy su coow la jeexee mag booy ba amul droit topp yi mu ñàkk jariñu ñàkk jariñu def ko dara moom moo def ñàkk jariñu dara ma dem topp ko di ko dóor ay ban moom ak ay mbokkam dóor ko ay siège ba mu gaañu suñ paree nag dañuy dem hôpital ñu xool lu ñu yoon may après dañ koy def mais nag dinañ def li ñu war a def bala ñu def dara dañuy dem toog waxtaan suñu biir comme écurie la donc war nañ dem toog waxtaan xool fan la ñu war a jaar pour xam nga euh, après fu ñu xool fan lay mujj daal mais daal lu ñu ko bàyyi noonu daal parce que Alioune Seye numéro 2 amul benn audace topp ñàkk jar ñu di ko dóor da ko bëggoon dóor na xaar ba at bi at bi sifflé na ko rey su ko rey moo xam ñu xam ne rey na ko moo ko mën mais amul droit yor ay banc ànd ak ay mbokkam yëpp sot ko dañ koo sot di ko door gaañ ko naa su rafetul loolu nag dinañ ciy jóg daal dinañ xool fan la ñuy jaar pour xool fan la ñuy mujjee waaw ki ñu jégalu daal mooy CNG la ñuy jégalu di jégalu suñ promoteur bi muy Xaadim Samb wax dëgg yàlla sonn na ci mu mosañoo lamb ji du demee nii ak bépp amateur ñu ngi lay jégalu waaw loolu daal la ñuy jégalu mais ci côté euh, Alioune Seye moom dinañ xool lépp loo xam ne tamit lu ñu war la dinañ ko def. Mhm. baax na mbokk gis nga nii lay demee ak wasaare làmb lépp lu xew ci làmb yi dañ leen koy bëgg a dëgtal ba mu mat buñ jógee fii dinañ dem ko Alioune Seye xool réaction xool ba xam dinañ ko mën a gis waxtaan ak moom ci làmb ji ak ni mu demee blessure beeg yëpp dara du leen ci rëcc connecté leen ngeen kal ko ci wasaare làmb wasaare TV bëggee jaay sama gars yi.